ami internetu Dakar Buzz nuyu naa leen bu baax a baax di am mbégte lool di ànd ak yéen saa su ne tey jii nag ñoo ngi fii nga xamante ne mooy zone de captage suñu teewaay umpale woo leen démb li nga xamante ne jot na fee am muy agression yi ñuy nemmeeku euh, saa su rawatina nag bu combat de bu amee rek dañuy gis li nga xamante ne moo mel noonu démb ngeen gis benn xale bu góor ñu ko doon agressé bëri na sax ndax du moom kese nga xamante ne moom la ñu agressé mais gis neen ci leneen ak leneen ba tax na tey ñu wàcc fii jéema waxtaan ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk population bi surtout nga xamante nag ñoom ñooy jeunes yi ñu xool ndax mbir mi le yàgg na fem wala déet sëñ bi nuyu naa la bu baax. waaw fay naa la soxna si na nga def yaa si jàmm. naka nga tudd. man maa ngi tudd mbay ja waaw. nga dëkk jeune de waaw fi laa dëkk waaw waaw fi laa dëkk. démb ñu nemmeeku fii li nga xamante ne moom moo nekk agression jeune bi nii da ngeen ko yàgg di dund wala lu bees la. loolu moom lu lu fi yàgg la lu fi yàgg la man fi laa dëkk. te fii chaque jour borom moto yi fii la ñuy romb di këf téléphone di këf saagu jigéen ñi même ful boo fi romb noonu yàgg na fee romb du question te ni démb lay doog am mais lu fi yàgg la même bu du combat de dafay am dafay am man fekk naa fi ay mini minuit une heure rek ngan di ful boo xam mën nañ téeméeri personne lu ñu romb mu dem buñ ci xasee ñëw kenn dootu génn kenn ñemetu génn te son na kat ba demewul noonu demewul noonu agression moom wax dëgg yàlla dëgg yàlla yàgg na fi te li ñu ko yóbbee lépp mooy baraag nekk fee dong la bu leen dàq fa leen daw dugg fa mu jeex tàkk loolu la. yéen bu ngeen gisee xàmmee ngeen ñi nga xamante ne ñoom ñooy agressé ana lan ngeen def pour jéem leen fi jëlee wala leneen. non mënoo leen a xàmmee parce que chaque jour ñi ñëw ak ñi ñëw du doom benn parce que fii yam xam nañu fii moo gën a neex agressé parce que jeunes yi fii bëriwul bëriwuñu fii dafa yomb agressé fii dafa yomb agressé jeunes yi bëriwuñu bëriwuñu mës ngaa fekkee ñuy agressé nit ci koñ. non jour match Sénégal bi man fii laa taxaw suñu buntu kër fii xam nga diggante bi sori fii ak tali bi ma taxaw fii ni jàkkaarloog euh, benn borom moto mais femme bi dafa taxaw di arrêté taxi avant muy arrêté taxi rek munu cëfet saak bi daw xam nga moto mu tànk munu ko topp tànk munu ko topp loolu la fii moom lu fi yàgg yàgg yàgg yàgg yàggal agression chaque jour dafay am chaque jour dafay am police nag munuñu chaque jour ñuy ñëw di jaabante jaabante gis na dañuy jaamar dem ñëw mais bu ñuy dem di ñëw doole kii mais li ko dalee foowa ca fële na le ba keroog ak Elton diggante bu ñu woowoon police bu ñëwoon mën na leen a jàpp te agression fa mu fële ci ginnaaw la sori na kon diggante fii ak Elton lu mu gat gàtt man na ay un kilomètre wala euh, mën na un kilomètre ñu réagir ñu defuñ dara. a ah, jot nañ woo police mais xam naa dañoo yéex xam nga bi ni mu xatee peut-être mu am tardement yooyu noonu loolu la rek. mais diggante bi ni mu soree boo xoolee fële ca foofu la foofu la agression bi amee police ñëwut. ngeen def police ñoom lu ñuy def benn nit mënut fukki mille. agresseurs yi dañu bëri dañoo bëri man nañ deux cent laa la wax dañoo bëri ful boo xamante yow mënoo xam ñii fu ñu jógee yow mënoo xam fu ñu dëkk xaw ma garaay fu ñu dëkk xaw xaar yàlla xaw fu ñu dëkk. mais lii moom lu fi bari yàgg na fa am nag du démb rek de. kon guddi gi du ngeen gis faral di gis ñuy sécuriser koñ bi police du fi wàcc. non police bi danaa gis muy solo la di dem ak ñëw noonu quoi danaa leen gis wax dëgg yàlla yenn yi dem ca baraag ya jàpp fa ne woon dem yóbbu waaw du wàññiwul dara moom waaw. lan ngeen yaakaar ne bu ngeen ko defee wala lan ngeen yaakaar ne bu buñ ko defee euh, solution dina. non lu ñuy yaakaar solution mooy ñun ku ñu jàppale la ñu bëgg ku ñu jàppale dong lañ bëgg police daal moo ñu mën a dimbali te moom la ñuy ñaan moom lañ yaakaar it parce que ñoo yor sécurité askan wi ñu moom lañ yaakaar yaakaaruñ keneen waaw merci. ça va. oui ça va def. yaa ci jàmm maa ngi si jàmm bu baax a baax Mouhamad. Mouhamad fii nga dëkk jeune waaw si si si si fii waaw. jot nga dégg wala jot nga fekkee li nga xamante ne moom moo fi xew démb agression. oui oui bon effectivement parce que démb bon aux environs de 15 heures 14 heures 15 amoon benn foule bu jógoon fii ñëw xam nga usurper gars yi di di agresser gars yi ah, devant tout le monde devant tout le monde te loolu yàgg na fi am xam nga du tey ce n'est pas la première fois tu vois chaque fois Zarko suy bëre wala mu am benn événement bu am ici à Grand Yoff ñun fii voilà duñ nekk si jaamu ko xam même sax bu dul loolu aussi guddi si fii à chaque fois gars yi ñuy ñëw xam yore seen deux roues képp ku taxaw si yoon rek dañuy ñëw këpp sa téléphone këpp sa sac dem parce que man demul fii nii lu fii li xew fii dem man fii fii laa toog gars fekk. fii nañ ma fekk gars yi yore seen jaas yi tu vois ñii ñii ñii ñii yore ay xeer mais à la fin man dama mujjee riposé sànni leen xeer ñu sànni ma. dañ la attaqué wala dañu ñëw non dañ ma attaqué waaw boobu fekk maa yor sama mon sama sama téléphone portable laa yoroon di connecté wu booy ñëw fii te te pourtant ay jeunes nañ soo leen xoolee ay mineurs nañ tu vois. ñaata. bon environ mun naa wax ay quinze quinze à dix huit ans quoi tu vois. parce que booy ay ay ay nañ mais xam naa ne que folie moo leen di emporter quoi mais yàgg na fi am vraiment sonn nañ quoi léegi ñu bëggoon nag vraiment bon fekkee ne gars yi mun nañu indi bon des comment dire encore des mesures palliatives par rapport à ça ñu régler ñu la situation quoi parce que lii li lii nii vraiment sonn nañ ci quoi. yaa ngi naan fii lañ la fekk après bu ñu ñëwee di la attaqué yow. bon bu ñu ñëwee bon ba attaqué ma da mujj a jël xeer comme comme tout le monde ah jël sama xeer sànni leen ñu sànni tey non non non non may sànnante ñoom may sànnante ñoom après ñu mujjee jël xam ñu mujjee avancé quoi dem seen yoon voilà jàll quoi voilà. alors fii même bu fekkut euh, combat de lutte moo fi am sax da ngeen di nemmeeku. non bëri na fii li ma loolu loolu noonu mun naa wax ne que c'est que guddi bëccëg à n'importe quelle heure fii nii day am agression en plein jour day am agression fii nii nii nii te te lu mu si gën a jaaxal dañ koy def xam nga ci kanam ñëpp te kenn du réagir kenn du réagir xaw ma lan la. xaw ma ñoom ci luñ ñoom lan lañu yaakaar wala ñoom ci lan lañu fondé quoi franchement ñu nañ te vois xam bon mun naa wax ne su continuer nii ñun aussi mun nañ jël aussi commande suñu mesure boobu képp ku ñëw ñu jéem bay agressé ñun aussi boo dinañ jëm riposé xam nga à notre manière parce que lii vraiment bon mu ñu commencé dépassé quoi. am na benn agresseur bu jàpp dóor ko gis ko ba bopp bi toj dóor ko ba muy bëgg dee est-ce que d'accord oui man bon selon moi euh, d'accord naa ñu comment dirais-je encore riposte bi carrément mu mu mu mu comment dirais-je encore mu mu tolloog à la mesure de l'acte voilà mais pas aussi dépassé tu vois mais gëm naa mais ce qui est sûr moom képp ku ñu fi jàppaat man man ma xam naa ko man képp ku ñu fi jàppaat muy def ce bon ce de truc là incha dina am de sérieux problème parce que mënuñu toog à chaque fois police police moom xam nga policiers yi bon duñ des fois dañu mais bon ce n'est pas tout le temps lu lu ëpp ñuy dem. xam nga ci barke gi la ñuy dem mooy barke yu nekk fële ne xaw ma cité imbécile dañuy ñëw romb fii def benn xam nga benn trois jours après dem seen yoon te te loolu noonu ça ne règle la situation na yi ñëw soit maire bi xool lu muy jëm implanté un poste de police fii nii xam nga ñëw assurer la sécurité de la population parce que ñu sonn nañ quoi franchement sonn nañ chaque jour chaque jour chaque jour sont les mêmes faits qui se nañ quoi voilà. salaamaaleykum. waaleykum salaam. soxna si nuyu naa la. naa la lu bëree bëri. fii nga dëkk zone de captage. zone de captage laa dëkk. Khady Diouf waaw. Khady démb euh, nemmeeku neen dégg neen fi li nga xamante ne mooy agression bi fi amoon gannaaw bu ñu organiser rek combat de lutte naka nga gisee. ah xanaa métti rek métti na moom wax dëgg fa yàlla ndax suñu bitikee yi démb vingt une heure lañ tëj xam nga bi waa vingt une heure lañ tëj démb ndax agression yi di agressé ay portable suñu dëkkandoo bi rek ci biir otoom lañ ko fekk yàlla xam na ñu jël téléphone waaw moom ci biir oto bi man mi démb fee may jaayee guddi gi damaa teel a laal rawala samay bagage waaw ndax lépp rek ci agression yi di dugg ci koñ yi di def ma maara day taali waaw agression yi moom sonnal nañ fi trop trop trop trop wax dëgg fa yàlla sonnal nañu bu làmb amee rek la fi am wala à part làmb déedéet du làmb rek bu fi amee moom surtout territoire bi tali bi nii du loolu waaw parce que da ngay gis koo xam te ne day day jógee Elton ba day obligé fay clando ba buntu këram bu amul njëgu tax ndax agression yi bu ñu këful sa saak dinañ la def n'importe quoi waaw. yan waxtu la ñuy gën di agressé guddi gi ba ci moom kay 21h bu xasee jot moom àndatoo ak sa sago 21h moom bu jotee moom àndatoo ak sa sago dañuy def lu leen neex waaw. mës ngeen ci wax euh, ñaan pour ñu ñëw dimbale leen wala police ah mas nañ ci ñaan parce que gis nga diggante bi looloo taxoon ñu jëlee fi sax ay oto yu yàqu yi fi nekkoon ñu doon def mécanicien yi looloo taxoon ñu jëlee ko fi waaye dara dara taxul ba tey mu jóge fi waaw. kon daal yéen fii zone de captage nekkoo leen déedéet nekkuñu ci jàmm moom wax dëgg fi yàlla suñu xel dalul surtout sama classe nga xam ne guddi la ñuy jaay suñu xel dalul benn yoon. waaw parce que da ngay yendoo dang-dangi fanaane dang-dangi bu guddi jotee nga gis ku ñëw ne ko coppet doo ci man dara biig ci guddi rek xaw ma ban la ci zone de captage am na koo xam ne dañ koy dàq vidéo bi seetaan naa sama téléphone dañ koy dàq di ko dàq ba ci këram ñu teg ko jaay sa xaw ma pompe lañ ko teg nangu nangu escouteur bi loolu yëpp xew na fii ci zone de captage waaw en tant que jigéen yaay nekk mag ak lépp euh, boo tëddee di xalaat loolu lim may def lu ma métti la daf may daf may touché parce que da nga jaboot sa njaboot mën na dem guddee àll yow ci sa bopp mën nga dem guddee àll yaa ngi dégg ah ñu def la noo xamante ne nii du la gënal bu bu dul sa doom tamit di ki nga bokkal moom daal li yàlla xam doy na waaw metti na trop métti na. lan ngeen di ñaan ngir ñu saafaraal bi. waaw ñu ngi ñaan état ñu ngi ñaan état fii Sénégal état lu mu fi bëgg a jëlee dina ko fi jëlee ñu ngi ñaan état mu dimbala ñu ci agression yi. ñun ay njabootam lañu askanam lañ mun nañu dimbali ci agression yi ñu jëleel ñu ko fi loolu daal lay ñaan waaw ñu ngi tàllal suñu loxo Macky Sall nañu fi jëleel agression yi sonn nañ jaaxle nañ ba fu njaaxle yam waa salaamaaleykum waaleykum salaam. sëñ bi nuyu naa la bu euh, ngi lay ziar ba dellu ziar Alassane Soumaré la. fii ñu fekk la fi nga xamante ne mooy zone de captage ñu fiy nemmee ko ay agression lu bëri rawatina nag bu euh, combat de lutte amee surtout nag démb li nga xamante ne euh, ñëpp gis neen ko ci réseaux sociaux yi naka nga gisee. Euh, zone de captage moom pour wax la lu leer fii amul làmb amul ñàkk làmb suba teel bi xale yi jigéen ñi suñuy xëy dañuy jànkuwanteel genre cas yooyu noonu ay ñëw këf sac këf portable ba tout tout récemment rek suñu benn collègue mu ngi fi ñaa dañoo këf téléphone am même pas dix jours fii nii fii nii te tey suba démb la tey suba la mooy femme bi ñu doon xëcc saagam tey suba fii nii si wetu jumaa ji te meeg ñun dañuy xoo sori moo tax jotuñu ko dimbali mais dama bëgg a xamal ne la Sénégal dañu war a dépasser ay cas d'agression ay nit gor na nit wala nit rey na nit tey jii tey dañu war def loi boo xam ne ku sàcc mbaa nga agressé nit ñu def benn crime criminalisé ñu ko waxee sax ah ko. ba nga ne kooku dañ koy tëj li mu day di dix ans day tëdd mooy li nga xam mooy yoon mais fii ak Sénégal delluwaatuñu si cosaan bu njëkk ba lii di fu mës a dañ parce que booy son nañ xam ne xel nangu ñoo liggéey bëgg nañu xaalis nangu ñoo liggéey nit ñi da ngay liggéey sa liggéey am sa tuut booy fekk la fi nga toog jël sa jaa seen jaas yi gor la nangu la nga yor tegu teguñu ko fenn su ilaa population bi mu mun mu mun police population bi bu ñu jëngoo jël comme ni euh, Cameroun def Cameroun def beneen di ko def bu Burkina di ko ko Sénégalais yi bu ñu ko commencé fii danañ fa gis loo xam ne wallaay duñ ko mën a te fa jëm nañu na bi jël ay disposition am moom laa mën a wax na état jël disposition ku sa ku rey nit nañu la rey ku ans ferme amul ay négociation ferme comme ni ñu defee pour ay xar sàcc jur nañ ko defee sàcc agressé ku agressé criminalisé tëj la 10 ans à 20 ans su amee léegi affaire bi

parce que doo mën a di ne nga wax ji ba wax ji mooy état moo war a jël fulla ak faydaam criminalisé def mu def ku def ku rey la rey ku sàcc ñu tëj la amee léegi affaire affaire yi bàyyi fekk loolu amut yàlla seede na lii du di a avancé. démb jàpp neen benn agresseur dóor ko gis ngeen bi dem na fu nekk est-ce que d'accord nga ci nuñ ko traité. agresseur bi su reyoon kooku la lu ñuy wax su reyoon kooku lan la ñuy wax. ay mbokkaam ñoo toog fay di jooy naan rey nañ ko ko agressé man dama la wax man sama personnel yaa ngi de yàlla bu ma dajeeg ñoom ñuy def loolu mais bi su ma dajeeg ñoom wallaay la si billahi wala sama bakkan bi laa leen jox danaa leen rey mbaa ñu rey ma lu leer laa la wax kaso ba laay deewi de ñu tëj ma parce que rey naa la ñuy wax mais li agresseur si boppam moo jarut ba li dem limal moo jarut ba lan mooy agressé ah, loolu baaxul c'est pas bon nañu wuti dañu dem liggéeyi ni ko sa morom yi mais sa morom góor da xar mat dem liggéeyi def lu nekk yow nga yow fekk ko yow si jaasi pompé ko daal non da ngay agg ay xale yu ndaw ay yu ndaw lañu ay xale yoo xam ne dara duñ tus ndaw loolu baaxul c'est pas bon ok de naa la lay delloo jaar Saara fekk la fii zone de captage fii nga xamante ne dañ fiy nemmeeku agression lu bëri rawatina nag bu fi làmb amee nag ah en tout cas daal affaire bi métti na de waaw parce que yow ngay ñëw liggéey nga liggéey ba pare nit jóge fële ñoo yàkkal la fi ngay liggéey wala nga tey sa alal ngay doxu nii rek waaw benn booy jóge fële ñëw di la agressé yóbbu sa yëf te mënoo si dara comprendre nga mais loolu daal métti na daal wax dëgg yàlla loolu laa amoon li may wax. lan nga yaakaar ne moo waxal mbir boobu laa yaakaar si loolu. ah loolu. amul sécurité wala. waaw loolu ñàkk rek la parce que. am na yoo xamante ne mu ngi am fii mais boo amoon sécurité wala loo xamante ne booy boo waxee rek booy tiit mais loolu yaakaar naa loolu waru si am quoi boo amoon sécurité rek affaire bi day métti quoi waaw man loolu. ndax yow mës nañ la agressé wala. ah, ah ma agressé mais am naa fii sama nekk dëkkandoo fii parce que démb rek la ñuy agressé fii sama benn waay yoobu téléphone ak 5000 waaw. Ah, gaañuñu gaañuñu ko sax. mais métti na daal wax dëgg yàlla parce que nit ñi ñëw rek coffre coffre téléphone si yaaw wala coffre cinq mille. heure lamb bi la woon wala. waaw heure lamb bi la woon waaw heure lamb bi la woon. lan ngay ñaan pour ñu jéem a sax. ah en tout cas damay ñaan daal nguur ji daal ñu jublu si quoi. boobaa yow boo nga nekk si jàmm mais boo nekkee sa liggéey bu dee yaay liggéey job sa job waaw te yaa ngi tiit leneen loo xamante ne waroo ko tiit sax waaw loolu la ñu bëgg ñu jublu si quoi. waaw loolu la amoon kàddu foofu rafet na. salaamaaleykum. maaleykum salaam soxna si. maa lay fay. Basirou. oui Basirou ñu fekk la fii zone de captage fii nga xamante ne dañ fiy nemmeeku ay agression yu bëri surtout nag bu làmb amee naka nga gis. waaw bu làmb amee moom fii day metti torop sax ci ñu fi dëkk depuis ba mu nekkee Demba Diop ba léegi bay làmb di am Demba Diop ba léegi fii chaque instant heure bu làmb amee agression. force dafay am dem fii lañ taxaw am na sama grand boo xamante ni motoom lañ fi jël waaw moto muy dawal nii gars yi nangu ak beneen booy. fii lañ te da koo wala da ko dafa taxaw gars yi nangu moto bi ci kawam mais ñi ngi taxaw ah ñun luñ ci man plus de cent personnes wala deux cent personnes dañoo bëri fii xoolal commencé fii ba ci oto bële yëpp ay nit la woon yor jaas yor paax kenn génn ñun fi lañ taxaw yor suñuy weñ 15 heures ah. 15 heures parce que dañoo fekk ñun ñuy añ booy bi génn e gars yi ñëwati nañ si lañ génn ñun taxaw it yor suñuy weñ kenn ñemewuñu agsi ci ñun mais ay nit fii lañ leen doon nangoo seeni moto lépp fii moom amul sécurité no même nekkul làmb tamit da ngeen waaw chaque jour ñu tëj tëj fii nit téléphone am chaque jour fii ñu ko fi téléphone am. boo fi daa amul sécurité wala fi ñuy agressé fii moom non non dëkkuñ fii moom. waaw dëkkuñ fii moom. yaakaar dina saaf xal. ah xanaa président sénégalais président sénégalais rek moo ci mën a jël matuwaayam moom ndax mooy président tous les sénégalais moom moo yor sécurité ñëpp moom rek moo si mën a jël sécurité te boo insister gars yi mën nañ laa rey nga perte yow mi dee yaay perte ñoom ñu continuer seen dund moo tax mu garaaw. daal yéen ñeme woo leen guddee wàcc. non ñun moom duñ guddee wàcc ñeme wuñ ko waaw 18h 19h mais fii agression amul heure de. guddeeg bëccëg tout instant la sa micro bi nga yor sax boo moytuwul ñu këf ko si yow. <laughs> ak sa waa ji boo moytuwul ñu këf la femme bi. ok nekkal si jàmm. salaamaaleykum. sëñ bi nuyu naa la. alhamdulilah sant yàlla. bi la. Euh, am wala yeneen jours yi tamit da ngeen am ay cas d'agression. heure heure bii la amoon demb ndax itam bu nekkul loolu sax euh, fii fii moom dafa dafa danger am parce que ñoom ñoom mënatoo xam euh, lii agresseur la mënatoo xam lii nekkul agresseur man nag euh, man Oumar Tine la fii laa dëkk son de captage waaw yàgg naa fi wante man agresseur mënuma wax nu du def parce que lu nekk ci réew mi nguur bi yëpp mënu koo xam nguur bi yëpp mënu koo xam ñun ñi ba ñu ba ñu amee ay nganaay ñu ñu jël suñu nganaay to pour problème bi dem demb moo tax ñuy yor suñu suñu nganaay waaw gis nga ñoom ba ñu buggee ba ñu buggee xaalis nañu dem liggéey nañu dem liggéey ñun dañu liggéey man nag waxuma kenn du ma rey waxuma kenn du ma rey ndax ku ma fekk fii sama place bañ ma ba ma ko ba ma ko jàppee dinaa ko rey dinaa ko rey bañu ma ci dara nag. ndax bu ñuy ñëw dañuy nganaayu. waaw ndax parce que ñoom bu ñu ñëw dañu nganaayu mhm. waaw buñ la fekkee buñ la fekk. démb fii lañ la fekk kii mhm. fii lañ la fekk kii fii fii fii am na booyam bu ñuy jël fii ay portable am ak ak seemil eh? mhm. te loolu mën nguur bi mënul xam ci dara te nguur nguur bi itam du ko fay. Eh? démb ñu fi jaaxoon dañoo bari woon. ay xale leen wala mag lañu ay mag lañu ay xale. bari nañu bari nañu bu ñu bu ñu bu ma gisee ñuy jóge fële nag mm-hmm. avant bu ñuy ñëw fi dama dama mujj ay jël jël jël sama jaas sama sama jaas yi ñëw taxaw fi taxaw fi jàpp sama njàmbur waaw ma wax kii ma wax kii gaa yaa ngi ñëw kii itam gani ci bitik bi ma ne ko bul jarul ngay tij am na benn ñaari ñag bu def ci biir mm-hmm. dañu daw boo tij buntu bugg a bi ma ne ko buleen leen bunt bay leen buntu ma dal di genn nag fii laa génn nag daal di jàpp sama jaasi. après waxuñu la dara. waxuñu ma dara am na ku ku rom keneen du rom fii di di di def nii di xool xool xool xool am na jaasi bi ma yor loolu moo tax mu mu mu mu kii muy jékki saka lam fekk na maa ngi koy taf nii waaw ak ak ak weñ bi ma yor lam parce que bañu ma ci dara ñaari loxo kay bu ne dama ko dama ko jox nga naay lam parce que ñi ñi xam naa ñi ay guerre mondiale lañ fekk guerre mondiale lañ na te bañu ma ci dara nañu guerre mondiale waaw. fii bi wala la ñuy agressé heure bii heure bii bii la. heure heure bii la ñu romb dem waaw. lu ñu nekk ci réew mi nag côté bii la ñuy jóg xam naa booru waa waa booru Grand Yoff waaw. lam keroog keroog wax ne xaw da xaw ma Sarko moo am combat. Sarko boo amee combat problème bi nañ ko yóbbu ci lamb bi. fii nekkul lamb fii fii tali la tali nguur la ah ay xale yi dañuy romb ak jigéen yi ak góor yi yëpp eh ak ñoo xam ne xamuñu dara am ñoo xam ne mënuñu gis te koo xam ne dafa yor ay ay ay xaalisam rek bi la ay yeneen am rek ñu ñu jal ko loolu ci lan la lan nga ah, yaakaar loolu nguur bi nguur bi ci boppam moo mën a am foofu moo mën a am foofu ay ay kii bu deful nag bu xam nga boo boo boo man mii fi ma ni boo ba ma rayoon fii nit. ci ci ñoom eh ba ma demee police dañ may wax ne waroo koo rey te bañ ma jàppee mu ndey ma ma perte eh bokkuma kenn ak ñoom ak papa ak yaay eh kon buñ ma fekk sama place. boo ma bëggee rey ba ma ko jàpp boo ma la jàppee dinaa la rey bañu ma ci dara. liñ ma defoon liñ ma defoon ñoom ñoo ma jamoon fii waaw te dañ maa jam dañ maa jam see dugul dañ maa jam fii dugul léegi ma ma biñ jam nag laa bëgg a jàpp ci paaka bi xam ma taa boobu bari nañu waaw ma bëgg a jàpp ci loxo bi bugg ko jam bug ko jam léegi léegi ma mu xëcc paaka bi paaka bi xote ma fii ndawante jam naa ko fii fii laa ko dóor paaka. waaw alors am internetu Dakar Buzz comme ni ma leen ko waxee woon rek ci euh, début bi tey dañu ñëw fi nga xamante ne mooy zone de captage nga xamante ne démb dañ fi nemmeeku nga xamante ne mooy agression euh, gannaaw bu làmb amee rek comme ni ngeen ko gisee dénk naa sama ñi nga xamante ne ñoom ñoo fi dëkk te wax ji daanaka benn la fi nga xamante ne mooy zone de captage ak euh, mbirum agression amul guddi amul bëccëg suba teel ak guddeeg lépp ci yem ndax ñoom rek dañuy daal di di agressé fii lu bëri bëri wax ne nu également koñ bi amul li nga xamante ne mooy sécurité des fois police dafiy wàcc mais yu euh, bëri daal te nit yi ñi nga xamante ne ñoom ñoo leen di agressé bu ñuy ñëw dañuy ñëw en foule dañuy bëri ba tax na ñoom euh, duñ leen mën a euh, maîtriser bu ñu sañoon li nga xamante ne moo nekk ki nga xamante ne moo nekk président de la république wala nguur bi rek daa daal di leen jàppale ci li nga xamante ne mooy mbirum agression yi nii ñuy nemmeeku jot neen ci waxtaan ak tamit ab soxna moom nga xamante ne tey ji yaay la mag la nee na carrément buy génn di liggéey si sax xelem du dal daal mu doon mbir mi nga xamante ne fii nga xamante ne mooy zone de captage dañ ko fi nemmeeku lu bari bëri bëri ba tax na nag ñoom bu ñu sañoon ñu jëm leen jàppale def tout ba nga xamante ne li ni mel dootu fi amati jërë ngeen jëf